Mbër nuyu naa. Ousseyn maa lay fay. ci loone sant yàlla. tey naka nga ñëwee. waaw ñëw rek ñëw ku wut sa ndam. di ñaan yàlla mi nga moom moo am ndam mu defal ñu ndam. tey dafa mel na nga xaw a calme de. waaw laaj loolu rek. waaw dafa am lu ñu bés bi jaral. li ñu war a yëngal si géej du si biti. gis nga Paul. gis naa ko. nan nga ko gisee. li laa doon ñaan mu ñëw rek laa doon ñaan de mu ñëw si jàmm. mu ñëw ci làmb ji nga doon ñaan. war laa doon ñaan si jàmm comme ñooñu. ni ko gisee mu ñëw nag naka nga ko gisee naka nga ko jàngatee. dama sant dama yàlla rek. parce que yaakaar naa mu ñëw loolu moo ma gënal comme ñëw na alhamdulilah. li des si biir géew bi la. li allah. kon ci kanam. waaw yaa xam de bu baax ak booy xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi yaa xam dóor na léegi gauche droite booy buuba ngay dóor buuba ngay dóor buuba buntu du feeñ ma ngay dóor kaaw na daan na yaa xam booy buuba duma na ko daan ko Boy Bouba duma na ko daan ko da koo pompe ko dóor dóoraat dóor dóoraat mu bàyyi mu biij ko mu tëdd làmb jaa ngi noonu fay naa la. ci loolu sant yàlla. tey naka nga waaj ak samay mbokk rek ak samay am di jàmm samay grand frère samay entraîneur ñëpp ëmb ma daal ma ñëw ñëw bu am solo. waaw di ñaan yàlla ndam. ndax mel na nga yokk poids bi. waaw laa mujjee ko laaj rek ñun ay xale lañ te dañuy entraîné combat bu ne ak ni ñu koy ñëwee waaw. adversaire dama ko laaj naka nga gisee Paul mu ne li ko gënoon intéressé mooy yow nga ñëw tay ci stade. moom loolu moo gën a intéressé mais si kanam tuuti moom si lay si kanam tuuti bu ñu jëflantee ba pare moom ci lay comprendre kan mooy Paul bu daanu. combat est-ce que xeex. mën na cee xeex mën nañ cee bañ a xaar xeex ah mais man li ma mooy ñu cons ko ñu xeex ba ñu jëflante comme que nee mën a xeex damaa bëgg ñu jëflante ba soo ko bëree. a te bu ñu bëree si kattanu yàlla lamb xam ma tey bu bëree taxawee bëri. waaw ko dàq bëri téeméeri junni yoon ku dàq bëri ku ëpp fit ku ëpp doole ku gën a bëgg lamb yàlla Torres fay na Torres moom turu lan la Boy Diop Torres Boy Diop Boy Diop takk na ko doole waaw waaw Boy Diop daan na ko da koo takk yéen ba ci suuf Boy Diop daan na ko dama tegi teg teg waaw waaw <laughs> Boy Diop ngoog da koo takk yónni ba ci kaw doo ca suuf doole yemul doole yemul vite fait bien fait laay lay la laa bàyyi ko mu dem bàyyi ko mu dem Boy Diop Boy Diop def na affaire waay. Modou nuyu naa la. maa lay fay Ousseyn. ci loone la eh, bi yaay maa raw. <laughs> foo toll. waaw ñu ngi rek. gars yi ñi nga am ay proposition nag. ñi nga am yaakaar quoi ma sa combat bi ñoom mujjee wax sa diggante caat yaa daw. non si moom la yàqoo billaahi man combat du yàqoo si man. gars yi man wax naa la ko plateau bi ñu toogee xam nga gars yi mën di wax nii rek coow nii ñuy wax wax ju bari mais bu dara desul loolu jël avance. wallaay dañuy daw te ñoom ñoo njëkk a déggoo promoteur bi ñoom déggoo promoteur bi presque trois jours ñu wax a déggoo promoteur bi ñoom ñu demaat ba ci biir ne dañ yokkal xaaba ab genre affaire te promoteur yi lay woo sa digganteeg moom la ñu wax wala dafa am benn adversaire boo xam te ñoom la koy proposé. non mbër rek da chaque jour ñu ñuy woo di ñu wax ay adversaire xëy na yenn adversaire wax yenn adversaire yoo xamante ne yii du ñu arrangé yii problème mu doon te lamb moo baaxoo noonu quoi mais ñu ngi ñuy proposé ay adversaire yenn adversaire baax na waaw am na adversaire yu ñuy proposé yu baax yoo xamante ni ay différence de prix lay doon yenn yi moom yenn adversaire yoo xam ne ñoo bëggul quoi. léegi fi mu toll nii fi mu kan ñan wala boo kan moo la ci gënal. waaw man instant yii nag moom xam nga aw ma xam nga làmb moom dafa toll foo xamante ni mbër boo fi jël boo fi laaj wala dara rek boo wax ni sa diggante moom combat la même bu logique sax day jàpp ne moo la raw wala dara yaa ngi dégg moo tax doo bëgg di ñu wax man maa ngi fi mbër yëpp xam nga Moussa Ndoye dafa war a ñëw ñu bëree Moussa Ndoye dafa ñëw ñu bëree amul combat amuma combat Zarko mu ngi fii di bëri wax di telli telli boobu ba léegi xam nga na ñëw ñu bëree moo gën wax. ñu bëri ngaa dugg ci Zarko. waaw Zarko Zarko du dara Zarko mooy loolu day nappe nii rek li muy xeeñ di wóowu ko quoi xëy na gars yi ñoo xamul nu mu demee rek mais moom xam na bu baax. kon fu ngeen xamante ne. moom xam na xam bu baax baax a baax xam na li may wax bu baax a baax aussi moom li muy xeeñ di wóowu ko waaw. double wax ji dina neex nii mais est-ce que lu ànd loolu avance Zarko ak Zarko ni mu sadigee Zarko ni mu mel Korea si biir làmb est-ce que mën Zarko. war na yàlla avance Zarko biroos ak meew la laa la wax moo gën a neex moo gën a neex moo gën a neex ci cousan. lenn xam naa ko ci boo jëlee avance am waa Rebeuss duñ la fekk fii ci biir. barke Seydouna Mohamed moo déggoo la avance am moo dàq cousan laa la wax biroos ak meew la. lekk dëgg wóor na rëbs billaay billaay walaay dafa bëri wax waa dama koy dégg mais nañoo ñu bëre quoi yooyu yëpp ay combat la xam nga. doomu daan waaw yooyu xam nga mooy loolu mooy li nga wax rek xam nga tey jii nii adversaire yi ñu war a bëre yéen xam ngeen leen ñun nekkuñu pour benn adversaire mooy li ma la boo fi ne kii dama war a bëre moom wala dara tey dañuy taxaw xam nga ne dala raw wala dara comprendre nga mais ñun nañ def douze combats ay ndaanaan comprendre bu ñu bëree day neex bu ñu feccee day neex te dañuy mobiliser comprendre nga kon dañoo war a bëre gars ñoo war a ñëw ñu bëre amuñu problème ay ay ay promoteur wala dara de mais adversaire yi mooy problème des fois aussi tam benn côté tam des fois dinañu wax ay adversaire yoo xamante ni moom suñu lay yàqoo parce que dëgg la yàlla bëgg quoi du adversaire yëpp lay yàqoo si ñoom am na si yenn adversaire yoo xamante ni ñun dinañ ñu ko proposé ñun ñu xool ni yi arrangé wuñ ñu bañ ko jël parce que loolu ak làmb ñoo ànd quoi noonu la demee nag kontaan naa ci yow. waaw ñoo far Ousmane ñu lay bëggee di la jaajëfal xam nga di féliciter suñu booy bi bëri léegi rek rek mu bëri daal ñu koy féliciter bu baax di ñaan yàlla aussi tamit suba am na ñaari combat Océan bu Rebeus day bëre Thiatou Mbomba day bëre ñu ñaan yàlla may leen ndam le 26 am na ñaari combat fils de Serigne Ndiaye Gamsi Boy ñu leen di ñaanal yàlla may leen ndam xam nga Ousseynou yow foo nga ñëw gi Rebeus quoi non dama koy def bilaay ñëwal quoi foo nga ñëw école ba parce que ay ndaaraan nga fa te booy macha allah ñu ngi def ay preuve yow jàppal bés rek waaw incha allah amul problème yow dinaa la woo nga ñëw école ba incha allah rabi ok mbokk yi arbitre baa ngi laaj ay jugeem Boy Walo Karbala arbitre ba sifflé Boy Walo Karbala ginnaaw Boy Walo Karbala Boy Walo Karbala Karbala ngi dox ci kaw Boy Walo Boy Walo Karbala Boy Walo moo ngeen moo ngeen mul xonk li bi ci bopp bi waaye Kerbala nga koy xool Kerbala dafa bëgg a dem walla daa bëgg a dóor ñoo ngay demee wet booy waalo Kerbala booy waalo na combat am daa faral di met Kerbala dafa bëgg dem daa bëgg dóor wala dafa bëgg a jàpp moo ngi dox ci kaw booy waalo. jël na ko Waalo jël na Karbala takk na ko Boy Waalo takk na ko Karbala biij na ko doole Boy Waalo takk na ko Waalo takk na Karbala maa ngay defaraat lu mu tan Waalo lu mu def biij na day daanu day daanu Karbala Boy Waalo dafa forcé Boy Walo daanu na Boy Walo daanu na Karbala daan na Boy Walo Mambal nuyu fay naa ci loone waaye sant baax baax. nee naa sañ se waaw waaw kay xel mu dal xel mu daal waaw. xel ma la gisee dafa mel ni yaa ngi ci bu garaaw. waaw macha allah ñu ci kawam bu baax a baax. waaw wax dëgg yàlla ñu ngi bu baax ñu ngi physique ñu ngi contact ñu ngi gant ñu ngi wàcc terrain bi tamit di compétir si moo loolu te loolu lépp boo koy def benn sànni garage ak say xarit sama ami d'enfant ak gars yi nekk diaspora bi Ousseynou Assane ñoom Seegay sama mbokk yi mbokk Saalum Saalum waa Touba ñëpp moo lool gars yi jàpp si xam nga dañuy jox xaalis boo xam ne mooy moom nga daan am ci làmb di ko def sa compte di la fayal saal ngay entraîné di la jox boo boo am di def parce que lamb benn bu sa xel dalul doo sa doo tax sa entraînement lépp lu war si man ba pare taxaw di waxtaan ak promoteur na boo la neexee nga jox Mame Balla combat nga jox ko set bolo ko biyee bu la neexee nga jël ko ci jël ko ci avance am ñu delloo ko xaalis bi moo loolu kon alhamdulilah kon moo tax ma la xel mu dara rek. ñoom lu leen dal. waaw mais xam nga yàlla mooy bu ay xamante si ku tedd ki ñu ngi leen baax gërëm bu baax a baax ñu am fi seen site ñoo moom waa takk ñooy ñoo moom takk ndeer ay gars yu baax ànd ak sama ami d'enfance tamit ñoom Seegay ñoom Sey Diop gars yi di si jàpp doyum bu baax a baax instant bi toon wax dëgg yàlla suñu xel dal na ci lépp ñu ngi entraîné ñu am xaalis ñu ngi koy teg ci yoon ñu ngi séré ñu ngi toog suñu kër di xaar combat ñëw ñu bëree ko moo loon mais fi mu toll nii soo ma dee wax adversaire yu Mame Balla ña ñëw adversaire parce que tamit buñ la gisee fi mu toll moom kenn du laajte ndax Mame Balla pareewul. su may may revanche Moussa Ndoye laay may revanche wax naa ko si yëpp amul combat. non mais moom Sa Thiès la jógee nag Mame Balla Moussa du la jël. Moussa Ndoye si Sa Thiès la jógee Moussa Ndoye premier défaite moo ko jox. ak humiliation duma la daal la Moussa Ndoye xanaa ñaan na yàlla bu doyee ba nekk ancien couloir Mame a nekk ancien couloir yàlla na ko yàlla def mu ne Mame Balla ñaari yoon lañ la ma daan ma daw ko nga ko daan da nga ko daan après am ay ci ci ay tolof tolof yoo nekk xam naa moom tamit mu dem. mais mais daan tolof tolof. Mame Balla Mame Balla international la. Mame Balla bii boo taxawoon bési di bëre. canal di ko wane TFM di ko wane booy fi nekk maa ngi coow làmb loolu yàlla def na ko ñu ne Mame Balla borom perse ndax lan xeetu jël yu garaaw damaa gëm yàlla moo tax ma entraîné bu ñëwaat mais sinon comme président dama damay découragé parce man mbiru victoire na yeneen adversaire yoo xamante ni ñoo gën a taxaw ka ay Moussa Ndoye nañu waxtaan nag ci làmb lañ nekk moom Balla damay su ma dama ne su may may revanche Moussa Ndoye la mujjë bu yof bu ñëwee ma may ko sens bu ñëwee ma may ko sens barki démb def naa émission di ko wax maa leen ëpp coow làmb maa leen gën a toj ñi ma ngaa ji avance double moteur Modou Anta bu ñëwee moom ma jël ambulance bu Thiès ñu ngi may woo waa Thiès di ma wax waxu laay ko dem man la ñaari adversaire la fa am muy ambulance bu Thiès ak Modou Anta ambulance bu si kees damaa machine am na dem am dem daan ko Modou Anta damaa daan Moussa Ndoye Moussa Ndoye daan ko kon xanaa loolu neex na. ñaar ñu soxla moo gën a yore ay wax walaay côté. waaw coow lamb ñu wër nañ ñëw. ñu toll daal may benn booy sens. waaye pare naa pour may booy prouver sens ñu ñëw mais ñi ma li ma limoon. ñu laa gën a bëgg ko jàq combat bu neex. damay entraîné dama am doole ba pare sama xel dafa dal te ba pare bëri moom ñëpp xam ne damaa mën a bëre. lamb xel mu dala ko def alhamdulilah macha allah yàlla ma yàlla may gudd fan mébét sama yéene li ma am ak li may liggéey suñu borom yàlla ma fay sama ñàkk boobu ci arène bi incha allah. jaajëf. mais ziar naa la. waaw mais delloo ziar Ousseyn Diop naanaat mag bi. vainqueur vainqueur waaw mais loolu loolu làmb Papa nga ñëw séntu mu metti nga ñëw mu yomb nga ñëw séntu mu yomb nga ñëw mu met loolu mooy làmb quoi ah di ko encouragé ndax moom champion daanaan la vraiment waaw. mais fi toll nii nag boo xoolee sa digganteeg booy yaa ngi leen di jeexal fan la sa nekk jamono ji. ma ak Mañi Kayre wala Abu Ndiasse rek waaw wala Macha waaw Mañi Kayre Abu Ndiasse wala Macha ku ma ci am baax na waaw. fi nga tànn diis de. la fi def lu ma deful. ndaanaan nga moom kenn warante wu ko mais fi nga taan diis. fi def lu ma deful te ñooñu ma la wax ñoo maa leen mën maa leen ëpp doole dàq leen bëre barke yonente bi waaw lamb moo waxul dëgg rek sama côté mais mi ngi commencé di wax dëgg nag ah parce que dëgg mooy mujj mooy njëkk mooy mujj waaw ah, lépp dina leer incha allah. kon booy daal nañ taxaw xaar yaa ngi ñëw. barke sëñ Fallou maa leen non instant bi moo loolu dama génne la fanaanoo man wane gu ma dara. gisagoo ma ma bëre benn temps bi ni affaire yooyu na ay combat rapproché laay bëre waneeku ma dara waaw parce que liñ ma jox lañ ma joxagul te comme ñooñu ay champion la ay derlen dama bëgg ñu jëflante làmb xam ma léegi. kontaan naa. yow ñoo far yow di bëgg waa Pikine a baax waaw bopp ci MMA bi mais du combat yi nii may combat moo tax. billaahi. sa xel am nekk ci làmb sax am na ay adversaires yoo bu baax a baax bu baax. barke alxuraan man combat yi ma bëre combat musuma bëre combat ñu jox ma favori man musuma jël adversaire ñu ñëw ne ma ah yaay favori. adversaire bu ma jël bu simmee ko gars yi ne tey mu ko mais yàlla ànd ak man kon maa ngi koy sante suñu borom ku mel ne double moteur na ñëw ñu bëre double moteur bi muy bëre fëgal fëgal da may sens. bi muy bëre keneen ak keneen dañ ko may chance mu bëre kon na ñëw ñu bëre man ak moom amul combat aw ma combat na ñu bëre Ndandi Fall na ñu bëre man ñi fi ñëpp bàyyi laa soxla Ndandi Fall na ñëw ñu bëre Mame Balla top 5 na ñëw ñu bëre barke alxuraan boo ko woowee léegi mu ñëw ñu bëre man ak moom Mame Balla top 5 bu paree na ñëw ñu bëre dafa mbër na ñëw ma dimbali ko boog bu dee moom day taamu di wut lu nooy na ñëw ma dimbali ko fii nooy na nepp na ñëw. barke alxuraan man bàyyiwuma kenn maa dul bëreeti yenn combat yoo xam ne dama koy bëre al pare samay mboq naan ma non waroon jël combat bi waaw c'est le moment ou jamais gars yi yooyu ma la limal nañ ñëw jël ma suñ ko mënul nañ dem toog amul problème incha allah jaayef doom day di nuyu nag waa site internet yi nekk Sénégal parce que tey lamb bu doxee bu doxee ba yegg si fii promoteurs yi am nañ si wàll mais site internet yi tamit am nañ si wàll mbër bu kenn xamul laa mbër bu kenn xamul sit internet yi ñoo lay génnee mbëru simple bu nekk si àll bi kenn xamula la site internet yi moo tax ñu xam la kon ñun bu ñuy nuyoo wala ñuy sant dañuy sant site internet yi di nuyu site internet yi ndax ñoom ñoo fi nekk di doxal làmb di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di kontaan si yéen baay jaayeen jëf. Modou nuyu naa la. maa ngi lay siyaare mon frère ma. ci loo ne sant yàlla rek. Euh, ñu gis combat bu neex di waaj a si dox ci diggante Franc ak ki nga xamante ne mooy Sokh ndax nga gisee ñaari xale yi. maa ngi lay bëggee di bëggee waa wasaare làmb yëpp Franssokh combat la boo xamante ne nii fi ñu toll ñoom ñaar ci seen génération combat bu metti la ci seen carrière déjà parce que il faut kenn kenn ci ñoom daan dem bàyyi fi keneen ki keneen ki mu fi bàyyi dafa war a repasser waat beneen examen pour dem fekk keneen ki ci kaw c'est-à-dire un combat de déclenchement la ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa daan say moroom ba ñu toll ci benn étape boo xamante ni kii daa war a dem ci benn chambre bu mag bi ñu nekk moo tax mu nekk combat bu metti moo tax mu nekk combat boo xamante ne ni combat bu jafe la. du yomb ndax ñoom ñaar bokkuñu façon bu ñuy bëree wala bu ñu ko bokkee ñoom dañuy attaqué mais bu ñu xoolee ci lutte simple franc wane na ci loo xamante ne gisuñu ko ci soq bu ñu xoolee ci lutte avec frappe soq wane na ci loo gisuñu ko ci franc muy combat boo xamante ne combat bu buy metti lay nekk du yomb. mais ñu gis nga xamante ne franc mooy soq moo gënoon bëgg combat bi ndax fu franc nekk mu fekk ko fa ne ko kaa ñu bëre ba combat bi taxaw soq njëkk dem. waaj mais bi mu ñëwee gis nañ ne bëgg na combat bi te fonk na ndax yokk na masse doole lëlu boole ci di waaj di waajal boppam Franc tamit kenn demul mu des Sokh lan mooy avantage am ci combat bi. nee naa la combat buy metti lay nekk. parce que dama leen a gis ñoom ñaan ñëpp pas plus tard que semaine dernière bi ma ñi ma ñaar ma gis ñëpp dañoo pare bu lamb ji man maa la wax secret bi bu lamb ji nekkoon suba fanaa ak Sokh pare nañ parce que combat la boo xam ne bu. bu ñoom ñaar ku ci nekk xam nga fi la bi mën a yóbbu li war Sokh mooy mu respecté Franc jox ko cër bii ma gis ni moom la ko jox parce que ne da nga respecté sa adversaire mais pas respect bu ëpp parce que bu respect bi ëppee sa adversaire am atu ci sa kaw Franc aussi la même chose moo ko war mooy respecté Sokh mu xam ne ki muy bëreel nawleem la mun na koo daan parce que bu ko mënul woon daan du jël avance am la boo xamante ne combat bu métti la. mais léegi mu wax ak waa Sokh mais dañuy tuddaale waa Pikine communication boobu muy waaw noonu la na ci tudd ñëpp bu muy am ci na ñëpp du risque risque lan Sokh ak ñooy bëre mais ñaari mbër yu mag lañu ci ku ci nekk ci ku ci nekk da boot gox Franc daa boot parcelle bu jugee xale parcelle yu bari dañ jug te Franc waa parcelle dañ ko yaakaar soq boo Pikine waa Pikine yaakaar soq am Baldé ta di ko ànd ak moom boo Niang di ak moom kenn Modou Lo ak Papa Sow ñoo ñoo koy ñoo koy ñoo koy dar kon combat la boo xamante ne du yomb Franc lu ko neex na wax soq soq lu ko neex na wax Franc yoon kenn nekku si lamb la kontaan maa la gën a kontaan di la bëggee di rafetlu sa liggéey di rafetlu sa liggéey bu baax brodo bu correct nga brodo bu xool lu rafet nga nga di ko dox dik ci làmb te loolu moo war maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee équipe bi ngay àndal kontaan ci yéen. kontaan naa ci jaajëf frère jaajëf. comico di sant waa Ñaaga waa waa waa Tivaouane Pël yëpp dañu maa ñëwal bi laa wala waa Thiaroye yan waa Guinée Guinée laa dem ba sama dëkk préparé sama baa ba Guinée parce que yàlla waa Guinée bu baax a baax waa Koundaara waa Kampaay sama dëkk waa Londal ñoom ñëpp dañu see jàpp. moo tax mbër bi bëri si non non la musique la la léegi da ngay. ba pare nag moo tax bëri suuf. non lamb léegi loolu lépp lay aajo bilaa walaay. jotul tamit nga wàññi tuuti tamit. non lamb gi instant bu yokku luñ ko wàññi incha allah rabbi waaw. adversaire yi bu ñu dee demee nii daal di nga bëre. non dinaa bëre am na adversaire am na seen seen lu mu métti métti dañuy bëre mais am na ñoo amuñu seen seen waaw. sëñ Bamba waaw foo jëm instant moom. waaw adversaire bi mu tege si kii bi damay jël ma dama tëgg benn booy waaw booy bi ma jox la may bëre ma am ma am ma si chance interdit waaw waaw jaajëf waay bëgg waay 2019 bërew Ndoye Vitamine ak Vito seen combat bi yàgg na Vito moo ñu wan ginnaaw benn loxo bi rek la war di ko xeex sëñ na Vito daa gëj a bëre depuis 2019 ba tey bërewul. ba léegi. daa gëj a bëre. kon Badou loo tax mu perte repère ndax kal yi muy teg ko fenn. kii kii laa am deux vitamines deux vitamines. Vito kal yi muy dafa sori trop mu daan. kalam bu ma ku ko ku ma ko kal ma ah mais lii du kalub lamb. du kalub lamb moos. moo gën a wóoroo di ci lamb. tey bu ñu defoon entraînement ma war la ci kalabam bindeef dootu la ci daan. mais mais mais dama gis dama gis ki nga xamante ni mooy Vito buy dóor day gëmm. boo ko doon xool léegi mu léegi li muy dóor du ko xool. waaw xoolal xoolal bu xoolee léegi mu dóor ko mu daan. dóoral ma dóor dóoral ma dóor. bu gën a yeewu. dóor ma dóor waaw. léegi da koy sonn da koy daan dafa sonn waaw sonn. Vito daan na ndoy vitamine. arbitre ñu déglu arbitre. ñu déglu arbitre. ah naa buubu. ah kon nanu def ndànk. ñu déglu arbitre ñu téye ci. nanu def ndànk kon. ñu xool la laa bi di. ñu téye ci. waaw waaw Vito Vito ndam la. Vito daan na ko na Vito ndam la. sonn na sonn da waaw. doo ko daan. lamba ngi noonu. waaw dañoo daanu léegi moo tax daan na Boy Waalo daa daanu léegi. mënul ñàkk am nañu. te benn écurie bi la. dëgg la. Vito ngi noonu bu bos ku saw. am na ndam day ñëw jege ko. Oh. bilaay bilaay ba léegi nii maa ngi koy meññee bilaay bilaay doomu naa lekk avance jàmbur di ko delloo loolu góor yàlla lañ nga ni tab laa amoon bu mag bilaay ma toog lu yàgg kontaan ma may daw rek lépp rek ngeen ànd sama ngor bilaay bilaay bilaay laa bi ñu ñoo sonn waaw komba bi métti combat jàng laa mu ñu mais lépp rek kii la parce que sëñ Bamba su ma nekkee mbër su ma nekkee mbër kii moo tax dama koy sant ba kii mooy sama papa kii moo ma def mbër maa ngi koy ñaanal ay G ay souris ay Gambien booy sama booy ndeysaan bilaay non tey tey nii la mu mënoon demee te suma ma daanoon may bàyyi bëre su ma daanoon damay bàyyi bëre waaw Serigne Bamba billaay walaay ñun nga war a doon champion dañoo sonn si làmb waaw dañ ma jox si grand combat bi boobu daaru daaru ngor ku daan naa la barki maam Serapha làmb la billaay maa ngi sant waa jàmm gën sant sama yaay sant sama papa billaay di sant gaa yëpp waa jàmm gën tële maam Diarra guy ga billaay waa Kokaaya Pape Dia Kader ñaari mbër yaa ngi noonu ci diggi géew bi combat bi dox ci diggante Paul bu Daaru ak Xeeru Ngor numéro 2 Boy Dakar maa ngi lay nuyu ma ne ko Boy Dakar maa ngi lay nuyu maa ngi sa appel léegi waaye maa ngi ca làmb ja dimanche 5 juin il est 19h35 ba sifflé na coup d'envoi Xeru Ngor mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw Paul bu Daaru la nu jàkkaarloo Paul bu Daaru am na lu muy jot ci loxo ya journée Djibson production fëgg na ca ngem la yéen a mankañ laay lay la laa eh. Eva maa ngi sat maa sat bu Daaru ak ki nga xamante ni mooy Xeru Ngor numéro 2 ñoo ngay lewaatoo Xeru Ngor numéro 2 moo ñu féetee Paul bu Daara moo ñu féete à gauche xëy nga cokkaas léegi xale yaa ngi doon ci digg géew bi xëy nga sàmmal ma say tànk xëy nga door na ko léegi xëy nga door na ko kuubu dal xëy nga sàmmal si tànk moo ngay xeex xëy nga Paul bu Daaru mbaa doomu daan du ci am mbaa doomu daan daw na ko njool ma waa njool mi xanaa daa mer <laughs> waay waay xëy nga. xeexu nga ngi noonu laay lay waaw waaw man lii laa bëgg combat bu warta yomb jàmm fu mu xëyal du fa gont xeexu Paul bu daaru nee ma juree par force xeexu na ma ko nee ma juree par force Paul bu daaru xeeru Ngor bu daaru waaye xeeru sàmmal ma say tànk sàmmal ma say tànk xeeru Ngor ngay xeex xeeru Ngor bu daaru xeeru Ngor ma say tànk Paul Paul Paul Paul daan na wala boobu Paul daanu na xeeru Ngor na Paul bu daaru waaw waaw xoolal ma lii <laughs> xeeru na Paul bu daaru. appel la. mais lan la. maa ngi réew mi. parce que Serigne Saliou Mbacké. mais maa ngi ko mais teew li lan la. salaamaaleykum. maaleykum salaam. man dama am ci si làmb dëgg la wala bu ma joxul mbir yu mag yi damay bàyyi làmb. 16 combats la am 16 combats. 12 victoires 4 défaites. amul ma daanul si làmb. mbir yu mag yi bu ñu bëre ak kii Coly Faye 2 ku daan ñu bëre. waaw. dégg nga li ma la te daan nañu ñu bëre ñoom ñëpp laay duma benn par benn ba ñu jeex tàkk ku ma soxla ma ngor